وعليكم من كل قال سلام لبخلق إله تولد وعليكم من كل قال سلام

فلا غالب وأدل هذا ما كلهم مكتلا نار كل مجمل للباري Allah بدار يسبابه والمواسي بقول جل رياده لا الجلال مرضا بربيبي يقنا مصطفى الخلق وهو قال مرضا هذا المهتدى بتال كأذى بنايات ربنا المتحدى كل قال وهو مقطع سورة وهو مقطع نبين أكرم بسين جاري سلام محمد لكنا وجنانه وبهار وبدر في الحادث وتولى في مذنب الكفر بعد ذلك الجمال يسمى كل رجل هذا ما يا له من كماله إلا الرحمن إلا خلق لا نظر على لهم بخموله وانقتال عيون عن كماله إلا الأمان إلا حقه وجبر الأمان في جبال والجبال يرب حائل الجبال إذا الأمان إذا خلق مولد الهيرة خال به حجر المصطفى جسيم نواده أقر مرضا كل مرض بالمقابى مرضا بالجد ثقيل الذي تعالي ñu lay gërëm di gërëm presse bi mi ngi ci jàmm dafa daara mi ngi ñëw léegi incha allah moo yebal njaboot yëpp ñëpp ñëw nañ Ndoukoumane ñëpp ñëw nañ lépp dix oto ñëpp ñëw nañ ay kaar ñëw wuyu si Baye Niass ñëpp mbëggeel lañ ñëwee te allah mbëggeel yëpp ay faju tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu doomu salaam wa rahmatullah doomu Oustaz Baye Dame mu doon juma moom ngeen doon teew nga xam ne kon moom moo di ci Medina Baye waaye bu jàpp leen ne ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ci taskat xibaar yi nekkee ci Medina lépp إلى الأمان إلى خلقه سبق بالفقر كل نفقته أنجب بالدر اليتيم من خاله إلى الأمان إلى خلقه وأبلهم ملالهم قلنا لي لأعين من يسري بالدراب الحاد كلام di am mbégte ak kontante bi ñu yàlla boole ci liggéey bi nga xam ne suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass taxawaloon na ko ci jamonoom oo jaami yàlla yëpp ñuy liggéey mu wax ne ku ci def yàlla fay la muy tabaxal ci aljana tey alhamdulilah biñ fi yàlla fekkolaatee ñu ñëw ba Cheikh Mouhamed Maye xalifa Cheikh Ibrahim Niass taxawal liggéey bi oo ci jaami yàlla yi ngir ñu fekkee ñu fekkee démb mën a barkeelu tey alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ndax démb mooy tey ku liggéey tey rek liggéeyoon nga démb ndax ñi fi nekkoon di liggéey démb ñoo meññ ñi fi ju ñi fi nekk tey yëpp kon nag alhamdulilah bi yàlla dafee lii jaam yàlla yi ñëw fi taalibe baay yi man damay wax sax ne li fi ñëw du taalibe baay rek taalibe baay ak lu duw taalibe baay fu nekk nit bàyyi ko nag jullit la tijaan la murid la xaadir la ñëppañ ci biir liggéey bi ndax man gis naa ci ñoo xam duñ taalibe te ñu ngi fii kon nag alhamdulilah ñu ngi wax jërëjëf suñu jërëjëfee bàyyi ñëpp mi nga moo ñu fàggul lii yàlla na yàlla fay képp koo xam ne liggéey nga ci yal na la ko yàlla fay comme ni mu ko waxee ne inna lazina moo ni naa la mu naara ñi nga xam ne liggéeyal nañ ko daan jot seen càkku te tey danañ ko jot loolu yaakaar la yàlla na yàlla dëggal yaakaar yëpp yàlla na yàlla àggale liggéey bi ci jàmm ñu bokk ci ni koy jëriñoo ba faw ci barke yonent bi ci barke Baay yàlla na yàlla fay mboolem taalibe Baay ak fu ñu bay ko xidma la nit ñi bëgg ku gis nit ñi def ko nga xam ne bëgg nañ buñ amee luñ liggéey rek dañ ko def nit ñi bëgg nañ bëgg nañ baay baay lañ bëgg baay moo fekk seen xol yi baay lañ yaakaar baay lañ xam li ñu def yëpp ànduñ ci seen sago lépp lu ñu def rek ñu koy def ngir liggéeyal baay yàlla na yàlla fay leen mbokk yi ñëw nañ ku nekk ñu bàyyi ko fi ñu ngi ci àll bi Ndakaaru ci Banjul ci dëkk kaw gi ñëpp bàyyi nañ seen tool yi waroon ñëw nañ ci liggéey bi ngir xidmaal bàyyi nag radiallahu anhu yàlla na yàlla fayante ñëpp lii la suñu nekkoon muy nekkoon bu ndëkk ñu daan lim Taïba Ñangeen Kër Madiabel euh, Njaayeen Kàdd waaye tey lépp tubaarkaala dafa maasale amul fenn fu ñu bàyyi ñëpp ñëw nañ ku gis ñu def rek nga xam na démb mooy tey te bàyyi rek lay feeñal bàyyi rek lay la ñuy sant bàyyi la gërëm ci lii moo ñu ko fàggul bëgg yàlla na yàlla fayal ñu ko képp koo xam ne tuur nga ko ñàkk ci liggéey bi rek yàlla na yàlla fayal ko ñu ngi gërëm it presse bi wax dëgg yàlla ñëpp taxawaay nañ ndax lii ku yàlla feeñalut ci poto yii tey doo ci feeñ ëllëg te ñi feeñoon démb ñooy feeñaa ci poto yi rek kon nag alhamdulilah jërëjëf yàlla na yàlla fay leen salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Serigne Serigne Aliou Cissé صراطك المستقيم ولا baa ngi tagg yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci taggal bi nga xam ne boole na saa yi si yeneen bi ak baatini yonent bi ak baatini baatini yonent bi loolu mooy lan nag fiñ dalee tey ñu ngi dalee ci judub yonent bi dalee xoon nañ ko ci xam gu jëkk ga xam gu jëkk googu tuddee nañ ko sajratul yaqiin tuddee nañ ko duratul baydaa tuddee nañ ko malaakam kuroo biina tuddee nañ ko xaqlul awal bàyyi mu ne prix mu ne na bàyyi ko lan mooy gàmmo mu ne ngay mu ne mooy ngay way yonent yàlla Muhammad di nettali ay waxta ay jikkoom ay jalooreem ñu nit way nañ yonent bi suñ kenn xam-xam danañ leen ko wax ci ni ko bàyyi rabbe ci laam yabi bàyyi mu ne jaa ahaa di kal na ko talku madwa te waxwate moom fi daari aji nekk la mu ci kër ga far dandi aji wéet fa ataata dikkal ko alxóoru xóorul hay niya baxta tan ci mbetteel bi tawaalin ci toxtaloo juddub yonentu baa ngoog nett nettalikat yi siire yi nag werante nañ ci fan la yonent bi juddoo ñu mu ngi juddoo kër ibnu yusufa ñu ne mu ngi juddoo ca duggoo ba mooy rak mu ba ñu mu ngi juddoo yi siibu abo taalib bàyyi mu ne li ëpp ci waxi góor ñi nag mooy siibu abo taalib te damay wax ne waxtu wuti ngay weerantee demal ci bàyyi rek dal dee dajeeg sawaab bàyyi moom waxam weerante amu ca moo tax lu la jaaxal ci téere yi demal ci bàyyi rek ndax moom rek moo ñu fi wax ne képp ku ma indil hadis mu wér mbaa mu doxadi ne yonent bi def daan julli da yor loxoom mu ne su boobaa indil ma ko rek ma jël li ma am ci téere yépp jox la ko te man suma xam-xam mooy téere te bam ko waxee ba léegi kenn indilagul ko ko kon lépp lépp bépp téere yoo xam ne werante nañ nañ dellu ci baay rek baay mooy tëralukaay bu mag ba léegi nag ni ngeen ko gisee moo di ci capitalu faydu tijaaniya di met na baay fi ñu taxaw moom moo di gi ni ngeen koo xamee tey dimanche la juróom benn fan ci weeru août atam 2023 yemook bés bi nga xamante ni moom moo di ñaareelu dimanche alxalifa moolaay Cheikh Ahmadul Maay Cheikh Ibrahim Niass xaadimul umma daal di yegg si su ko defee oustaz nee nañu avancé fii dugg ci fi nga xam ne moo di ci waañ bi ndax liggéey bi moom bu amul lekk du am du mën a nekk di lekk gi am na ci solo loolu moo tax ñuy ànd ak yéen ci mboolem média dara xadara média dara fayda ngeen mën di am li nga xam ne moom moo fi xew waaye ñi nga xam ne ñooy togg kër yi tamit dañ ci am solo ñun ñu mën leen a jël ñi nga xam ne ñoo yore waañ su ko defee ñu mën leen aca Cheikh Ibrahim yéen yéen a nit ñaa ngi fële di liggéey mais tamit ku nekk xam ne ne balaa saako bu deful dara du taxaw yéen ci waañ bi waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu yoon di gërëm euh, na Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu di am mbégte trop ci bés bi ci oote bi si ñaari oote tamit benn tamit benn oote rek wax dëgg yàlla doon nañ def direct suñu téléphone waaye ñu gis ne mënuñoo toog dëgg neex yàlla ñëw di xidmaal ma woon naa Cheikh Ibrahima si buntu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam loolu dañ ciy kontaan ñu keroon ay waañ nag dimanche bële passé dañoo keroon benn waañ fii ci gannaaw kër Baye waa Dakar yeeg ñëpp waañ bi leen leen defaat tey dimanche taal ñetti ñetti yoo xamante ni allah dañ cee am mbégte loolu yëpp bi mooy Baye oote Baye bu ootee ñun amuñ baa ngi si bu ootee radiyallahu anhu ñun amuñ benn tànk dellu ginnaaw du jëmbe ci kanam liggéeyal bi xidmaal ko kon ñi am mbégte ci loolu sant yàlla mooy mooy mooy mooy mooy mooy taxawaay bi ngeen gis waaye gis ni ren gi ngeen gis nii wax dëgg yàlla xañ na waaw xañ na yàlla moom si jiital rek waaye eh, si ndigalu eh, bàyyi sañ defee lii yëpp yàlla mën ñoo dimbale ma ànd sa suma ay xarit ñoom ama sekk jimba bi nekk ci bis bi ñoom père ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom tafa jaase mu nekk benn groupe boo xamante nii daal rek formé ko fii dimanche bi passé ñëpp say nekk di jàppalante loolu nag ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax di si gërëm bu baax suñu sëriñ Maodo Cheikh Ibrahima Niass am nañ def na bu baax a baax donte mënuñoo wax waaye wax dëgg yàlla. alors li ngeen def nii dafa mel ni kon da ngeen def même ñu nekk ci biir sax ku nekk mën ngaa toll fi nga nekk participer fi nga mën waaw loolu am na li ma ku nekk mën nga ku nekk mën nga wéer indi orange money Ah, man dama génnee def li ñu mën jënd ceeb jënd diwlin jënd nangam léegi ne dem jël ma ne gars yi dem leen jël affaire bi day xëy rek aussi mbiram bàññis la jël leen jël leen ñuy teg damay toog rek xaalis dugub dem génn ñu fay bor yi ba léegi si lañ nekk nii ñun ñi gis image yi ñi ngi gis lu di ma oo di yónnee di def seen dimbal comme ni ko ñëpp defee euro bëgg fu nekk rawatina sama mbokk Gambien wax dëgg yàlla soo gisee ma ne sama mbokk Gambien yi Cheikh Bachir nag xam ne li may wax ak Muniru man daanaka Gambie laa gën a féetee fa la ma bañ a sànni sama mbokk Gambie dañ koy participer participer yu bëri sax yu am doole sax wallaahi moo tax ma leen tuddi saa su ne donte ma leen tuddi ñëpp nag di gërëm ñëpp beneen yoon di leen wàññi di leen ñaanal yéen tam wax sama mbokk yéen tam yàlla dafa leen toog liggéey bu dee ngeen liggéey seen image ñëpp a ngi di bég kontaan ñu mënta ñëw yéen bi nga def même ñu mënta am bu def seen kurus

bañ do fekkee ci jamm ak salam di ñaan yalla chanté bi ag ci jamm ak salam ñu toog bay suñu sëri sa di nekkali li ni ñi ngi san ñëw rek di xidmaal baay nak lepp luñu fi def rek baay da ak gën ci def ñi ngi ñaan yalla yalla may ñu katan yalla agali liggéey bi ci jamm ak salam képp ku fi ni jàngoro yàlla na ko suñ borom fajj képp ku fi ni aajo yalla nako suñu borom fajj képp ku fi ni soxla yàlla borom suñ borom faj lépp ci barka bu maa laaj Abdoulaye Niass ci barke Baye ci barke xalifa bi imam Cheikh yàlla may ko wér ak xalifa bi yëpp ci barke kontaan nañ daal parce que émotion moo ñu jàpp mënuñu wax ci wax sa mbokk soxna yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi ñëwaguñ ba tey pour ñu mën a participer na ñëpp génn na ñëpp génn daal lépp luñ togg ñu barkeelu ci parce dañuy xidmaal Baye ci xidma rek lañ nekk waaw vingt cinq vingt cinq acca jërëjëf Seyda Maimouna ñëw tamit nañu lool ci yow ñu ngi bëgg di kontaan bu baax a baax yi ñu ngi leen ko gisee noonu ngeen koy dundee door ak ñun en direct ci ci ci plateforme yi nga xam ne média de la fayda nekk fii nga xam ne kon moom moo di ci Medina Baye ngeen ñu ñu ñu baay bi amul tànk ginnaaw euh, jëf jël la ñuy wax rek jàpp jërëm kon nag sant nañ yàlla ñoo taxaw fii kontaan daal macha allah wax dëgg loo xam ci waa joo xam ne gëm na alquran mu ngi koy jàng mu ngi koy jàngale tantal yonent bi tant bu xem nii dajale julit ñi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan jox leen ñu sedd ñu naan ñuy tagg yonent yàlla moom man muy génnee xalalam da joxe bi ay ba tam da génnee rongoñ lu ngeen xam ci waa jooju xaymam kenn mënu koo xam Abdul Mutalib nag dal dem nag bam demee nag yàkkanti pour bugg a gis sët bi lii Abdurahman ibnu Xoof ko bul ñëw de ñun doomi aadama yi sax jotaguñ ci moom malaaka yi ñoo koy rewli mu dal di toog ba gaa sottal ci moom ni ko pare nañ ñëwal mu dal di ñëw nag fekk yoon ci yàlla Muhammad juddu nag indaale leer doomu adama yi ku dul moom booy juddu deret ngay indaale dañ lay sanga nga door a mën a ànd ak nit ñalet loolu nag ki ma jàngal te bàyyi jàngal ko te mooy Cheikh Omar Fati Diallo radiyallahu anhu wax nañu ne doomu aadama su nekkee ci biiram ndeyam dafay foog ne foofa rek a lu koy xamal ne feneen am na fu dul fii mu nekk nag mooy lekk yi ndeyam de lekk ak naan yi ndeyam de naan mu de ko fekk ci koll ba mu xam ne yii dey feneen lay bàyyi koo fu dul fii muy kumpa nag fi ko yëf yi bàyyi ko mu jiital boppam nag dëkkun kuni dëkkun kuni dëkkun kuni ba bañ koy wane yoon wa yonente nag moom xam na ndakaaru xam na ndar xam na jolof xam na saalum da jiitalante wut ci boppam xam ngeen nu mu defam ay tànkam la jiital xar jumba xam yaayam jaar ci fàll sàll rek gën a cëpp xam ngeen ne ku dul yonent boo ko ci peelu sa ci sa biiram day rek sa yaay dina dee waaye yonent rek la yàlla teralee mu mel ni ku tëdd ci sam lal dem neex la rek nga ne cëpp mu dal di ci peelu dal di teen kaw bàyyi mu ne teen kaw googu lum lay wan mooy ku fasoo kowe ñu kowe ngay xool bët moo tax mu dal di teen kaw xemut ci teen kaw ga mu dal di rot sujjoot ne allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan la ilaha inni rasulullahi allahumma rafiqa la la wala tudd na njaamu jëf na njaamu su ko defee mu dal di juddu nag teen kaw googu bu siyee ñu koy wayal mu ne raafe ana rasu woo fi saale kaaraf ila kulli sadadin ima oh, sallallahu alayhi wa sallam bam ko defee nag mu dal di nag si jóot na dal di nag loxo ba banque ñeenti baaroom ñëpp tàllal benn baaroom bi ngir de wane yàlla kenn la loolu la doon wone moo tax ndeysaan abbas mos na ko koo laaj ni ko yow dey Muhammad jaaxal nga ñu ñun de gis nañ ba nga juddoo de liir ngay joxoñ weer yi sa baaroom bii loolu lu ko waraloon mu ne ko weer yi moo ma doon waxtaanal ne ma ey Muhammad bul jooy yaa tax ñu bind ma yaa tax ñu bind jant bi yaa tax lépp lu yàlla bind mu bind ko sa benn toqal rongoñ rek bu mu dot ci kaw suuf de mu ne ko looloo taxoon waaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu wa sallam di nuyu umatu muhammad sallallahu wa sallam di am kontaan bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne آه، مولانا الخليفة الشيخ محمد الماحي خادم الأمة موقع اللي هناك رجال اللي بيها خمنا مولانا مولانا الشيخ رحمة اسماعيل موي توب ينتو صلى الله عليه وسلم ديغال ينتو صلى الله عليه وسلم بغ ينتو صلى الله عليه وسلم كون ليغي بي ني داف ني في مينغال توجور من نيغا خامنا ньо نيكون خاري بدر اك نيغا خامنا ньо نيكون صحابه ينتو صلى الله عليه وسلم ليغي بي ندام ليغي باي دي ني جوخ اي tegtal yu leer euh, jàpp naa ne képp koo xam ne ñëw nga ci liggéey bi yow ak ñoom yéen a bokk ñoom yoon surtout nag bu fekkee yàgg nañoo gis liggéey yu mag ci xadara bi waaye dafay jëm ci ñene jumaa ji te ñëpp daa ko ne jumaa néegu yàlla la waaye li ñuy defar nii ëpp na na saal kon euh, mën nañoo wax ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy defaral tànt minassa loolu mu firi rek li Mawlana Cheikh Ibrahim Niass daam wax ci ay waxam ne raaytu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fi kainaati muxallisu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam na gis mu nome ko na ko yow yaay sama ambassadeur ci mboolem kaw ni waaye tamit yaay xettali jaam yi jëlee leen ci yóbbu leen ci ci texe kon bu ñuy defal li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tey wax dëgg yàlla bu taalibe bàyyi ñëwee soppe yi ñëwee ñeneen sax di nga fi sax koo xam ne jàpp naa ne sax du jullit waaye dafa jàpp ne rek liggéey bi ñu def nii liggéeyal yàlla la moo tax mu ñëw man nag toujours bu ma waxee loolu ba pare gërëm taaliba bàyyi gërëm dëkkandoore ndax gis neen ci suñu mbokku waa kër Cheikh Ahmadou Bamba ñu ñëw fi dafi liggéey liggéey bu am solo waaye nag man dafa am benn euh, négligence boo xam ne ba léegi dama koy wax toujours muy état bu Sénégal wax dëgg yàlla li ma dégg ne moom lañ def ci tabax bi man loolu day euh, métti na ma lool Euh, lu tuutee tuuti la ci projet bi ndax tant bi dañ ne un milliard et quelque moo koy defar dégg nañ ci ki nga xam ne mooy promoteur bi mu ne gouvernement bu Sénégal def na ci trois cent millions. am na nag ay wax yu bëri yuñ ci wax naan moom moo bind plan boo xam ne trois cent millions loolu man laaj naa ko président Baye si dina ma amul. projet bi douze projet la tente bi li ko war a defal un milliard et quelque la mais état bu demoon sax ba ci def dara pour man waroon na ko yëkkati sax mu jox leen ko global. mais daf leen a jox cent millions mais ni ñi muy jox óoluwu leen te loolu rafetul ci xadara bi ndax tante bi ñu defar ni tey balaa yàgg nit dina ci jugee bitim réew ñëw te kooku bu départ dëkkam ba bu yegsi fii Medina Baye li muy dagg ci billet li muy fay ci transport lekk mag naanam loolu yëpp mooy budget bi nga xam ne moom la ñuy watal état kon état liñ koy laaj suñu moomeel la wuñ ko waaye nag dañoo jàpp ne comme Medina Baye dafa nekk dëkk boo xam ne ñëpp xam neen ko ci àddina mu nekk dëkk boo xam ne du waa dëkkam rek ñoo koy liggéeyal waa bitim réew dañuy liggéeyal Medina Baye liggéey boobu Sénégal daf fi am ca kon nag état bu Sénégal wax dëgg yàlla waroon na mën a jël en charge ci projet yi yenn sax ne moo koy defaral boppam rawatina nag bu fekkee ay taalibe ñoo koy defar loolu daal loolu laa am lu may wax di leen wa di leen soññu surtout tamit taalibe Baye yi nga xam ne dañoo nekk ci gouvernement bi gis neen wax dëgg yàlla am nañu yëngatu mais daal li ñuy def daal man xeeb naa parce que bu fekkee damay gis beneen kër gis euh, ñi ñi def dara ni may gisee seen taalibe yi di ci fugloo di ci di ci yëngatoo ah ak taalibe yi nga xam ne seen mën-mën li ñu am mooy seen seen jëmmu ak seen ak seen doole ñu ngi koy joxe ñi ngi togg di indi ñi ngi indi ndox di indi ñi ngi def man liggéey bi ci laa xamee li saako sima li saako sima disee musuma musuma yëkkati sima waaye damaa ñëw rek ñu ne nañu bi waaye ba ma ci sànjaafoo benn xam naa li sima disee kon nag Euh, ku am loo xam ne yàlla teral na la ba nga man a xam ba ni nga dund ba am ni doog a xam ne saako ciment di jar li li nu mu diisee kooku buñu ootee moo tax dañu summeeku nekk ay taalibe fàttali ko ni Baye waxoon xaaj Abdallahi li nga xam ne mi ngi ci ñun du doom du taalibe du mbok du xarit du dara dëggu ak góorgóorlu ak far ñun nag ci loolu lañ bëgg a nekk bëgg a dëggu bëgg a góorgóorlu bëgg a farlu ngir liggéeyal Baye te moo tax daal jërëjëfee Baye salaamaaleykum jërëjëf Cheikh Baye Mbaye Niass al Kaolaxi ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant mu nekk adjoint au maire wala yëf yëpp moo ko téye woon ci loxoom nag dañoo seddoo yëf yi am na ñu jël neex baat gi am na ñu jël njàmbaar bi am na ñu jël taar bi am na ñu jël dara ci xam-xam bi am na ñu itam itam tabega waaye boole yëpp ci benn loxo bàyyee ko defoon moom non la yonenté bi melone sallallahu alayhi wa sallam te dama len wax ne bay don na gim don na yonenté bi don na haqiqi la don na na ci jëmmam ja don na na ci melom wa don na na ci xam-xam ba don na na ci jikko yu rafet ja bam ko defé nak kon yonenté ala Muhammad mo len gën mo len gën lutax alquran mo wéral gën gi te yëpp yàlla joor na leen saalalu na leen yaa noohu jàng ngeen ko moos yaa ibrahim arid anasa jàng ngeen ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan jàng ngeen ko yaa saalihu qad kunta fiina marjooan jàng ngeen ko yaa xesam nu mariama a anta qulta linaasi jàng ngeen ko ndax yaa muhammad jàng ngeen ko déedéet xam ngeen luñ koy waxam yaa ayyuha rasulu balix yaa ayyuha rasulu laysinka yaa ayyuha nabi jahidil kufa yaa ayyuha nabi isa talaqtum yaa ayyuha nabi lima tuharim yaa ayyuha nabi itaqila yaa ayyuha nabi hasbukallah yaa ayyuha musannilu qum ilayla yaa ayyuha mudasir qum loolu la ñuy wax waa ji waa yaa muhammad doo ko jàng mag looloo tax bàyyi xool ko ba mu yàgg mu ne ko inna qadna lan biya e baqasa lan biya e inna qadna lan biya e baqasa lan biya e inna qadna lan e. ci ya ya ayuha rasul ya ayuha nabi ya ayuha muslilu ya ayuha mudasir lool nga mane gaay loolu mooy juddu yoon ci Yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam juddu boobu nag ويكالي yi way nañ ko bu sëriñ كان ne لسرور mawlidi la si kaana léegi ni sororun وتوالت مسل الهواتف أنقذ ولذا المصطفى قلنا وتدعى إيوان كسا ولولا آية منك ما تدعى البناء وقد كل بيت نار وفيه كربة من قمودها balaahu balaahu sallallahu alayhi wa sallam maam Maodo ne ko ca nuuniya wa mawliduhu bihi salafun wa xayrun wa mawliduhu bihi salafun wa xayrun wa mawliduhu bihi salafun wa xayrun fa bihi taasimi in jaa'u sijoni ala sururin mulukilaha jubolun wa najmul kufri so naqsil mayni maam borom Tuubaa نيكوش جسم نور العسيم قد يرى به قصور قيسرى من كان في أم القرى مكة خير الأرم باي خليفة نكو أنت للكون باجة وبهاء وتجالت بنورك سلماء ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ñu wax jërëjëf Baye Niass di sant yàlla bu baax di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax lu ñu def nii lu ndaw la si ñun ndax du yaroo kër Maolana Cheikh Ibrahima Niass sa say doom juddoo fa yaroo fa magge fa kon wax deug yalla am nañ euh, possibilité wala yalla may nañu xewal lum ñu may lum gëna ndaw law ñu berndaal donte ñu dem ci kaw sax du gëm a liggéey waaye ñun ñu mëna a suñu poste regroupement suñu jigeen yi nga xamanteni ñom ñoo nek kër bay ñi am euh, borom kër ak ñi amul borom kër ñëpp ak ñi nga xamanteni seen borom kër ñom ñoo nek ci biir kër bay ñoom ñoo boolante li am lépp boolante ko pour def ko pour teral gan ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw ndax lii nii euh, lu gën a ndaw la ñu bëri dañuy jàpp ay nag ay bëy ay xar di rey waaye ñun dañoo jëm ci géej gi nga xam ne moo la a Ibrahima Niass moom mooy géej ñu dañoo dem ci jël ci jën ci géej gi defal nit ñi pour nit ñi lekk kon ñun alhamdulilah rabbil alamin gis-gis boobu lañu am ceebu jën daal bu baax lañ def ceebu jën bu neex bu boo xamante ni allah jën bu mag la si jën yi a baax ndax Mawlana Cheikh Ibrahima mbaalam gi dafa mbaal dafa mbaal mbaal yoo xam dafa xool lu a baax si géej mu mbaal ko ñëw teg ñun tamit dañoo dem ci géej gi xool jën a baax ñu andi ko defal ko gan ñi ñi nga xamante ni gali Mawlana Cheikh Ibrahima Niass kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaanal fayda tijaan yëpp boolee média bi mbir tënku ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass leen di gërëm gërëm tamit suñu benn doomu ñu yaay boo xamante ni Babacar Fane di doomu Jim Fane Pa Makhtar Diouf mi xam na ko muy papaam mu doon taalibu bu dëggu taalibu boo xamante ni kenn du ko nataabale ci kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaye ci kër Mawlana Cheikh Mahamadou Kouré Cheikh Ibrahima Niass moom moo ñu yónnee saako ceeb yónnu ñu bëroo diwlin yónnu ñu ay ndugg ñu ni bolante waa kër Baye ñun ñëpp ñu def ko ba ma ko ooyee san Dakaaru tegu ci baat la ma ko yónnee te fere yëpp moom moo ko def kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant liggéeyal baay bi daal ñun daal ñu ngi nii buñ buñ ne ñu defaat ko incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf marhaban. waaw ñu di la ziar ba di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan waaw di wax na rek comme ni ko euh, sama xarit ak jaw waxee rek moo dina liggéeyal baay moom mu ngi xeeb sax lim def waaye nag lu rëy parce que tey euh, dundal benn benn doomu aadama rek nga dundal ko tey euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digg na ci lu donc kon ñu ngi leen gërëm ñoom ñi nga xam ne yëpp def nañ ci ñun ñun moom comme ni nga ko waxee woon keroog suñ caméra yi lañ yor suñ bàyyi dañ laan dem tool ñi laan ànd ak ñoom di dem di bay mu nekk nii nag ñun toolatuñ ci saaru bay ci lii lañ nekk ci lañ mën a xidmaale buñ ñu buñ ñu buñ gisee taxuñ ci ma neen xam ne rek noonu la demee waaw waaw ñun daal ñun daal nii la lii la ñuy liggéey donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ba si kanam ñu wax leen ci kanam rek ñu jël suwaat incha allahu rabbi